deux mille février 2024 mu ni décret ba moom neenal na ko waaye lam fàtte mooy conseil constitutionnel cote donc ci sunum réew moo am droit dakkal ab élection présidentielle kon pré kon comme ni ko ma soxna kan waxee mu retirer décret ba mu defoon pour ñu waajal élection lan defoon ba fi mu yàqu kon ñu war a wax sénégalais yi ñuy seetaan ñu ko nangoo ñàkk fayda parce que réew mi dañ ko ko dénkoon mu mel ni ak gone goo xam danga koy day nekk ak moroomu goneem ñuy fo ñu dénk ko fowukaay muy fo bam nekk ko ka ko dénkoon ba koo récupéré bu ni ko duma la ko delloo ñun ñoo moom sunu sañ-sañ ñun sénégalais yi dénkoon ko ko fukki at ak ñaar nguuram jeex mu war a dem ñu tànnaat ku ñu doy ñun sénégalais yi dénk ko suñu réew président Macky Sall ne du ngeen tànnaat man maay prolonger sama mandat nu ma ko neexee parce que wutalu ko ci ab ambassade bu bind ay ressortissants ci lañ yëgee information bi que juróom benn weer la bëgg a dàq élection yi kon déjà muy jàkkaarloog ñun sénégalais yi dem yëgal ko ambassade yi ne leen juróom benn weer laa ko bëgg a dàq te ñun ñi muy waxal ñun sénégalais yi sax yëgaluñu ko kooku wane na encore une fois que respecté wuñu bam neex leen ñu ni suba ci assemblée national daañ fa voté loi boo xam ne sax daañ wax loo nit mu def amendement pour yokkal ko ko sax ba mu mat ñu dem sax def ko ñaari at ñu ni këll-këllee ñun sénégalais comme si président Macky Sall kon nag ñuy wax ak sénégalais yi ni l'heure est grave comme ni ko tubaab di waxee sunu réew mi ñun ñoo ko moom président la république bu fi mos a jaar da ngay tënku ci charte réew mi di tënku ci constitution réew mi kon président Macky Sall mënta taxaw jaay ñu doole def lu ko neex nappaaje ñu ñun sénégalais ñuy toog di seetaan kon moo tax tey taxawaay bi sénégalais yi am ñu rafetlu ko fee ca Thiès ca Tiwaawoon ca ca ca VDN ba ak ca biir Dakar ak fépp fi nga xam si ni wane ni du ñu nangu ci seen biir réew ñu leen fay lawal buumu jaam ci seen ndodd teg leen ay jaam ci seen biir réew te ki leen koy teg di sénégalais comme ñoom te ëpp leen benn sañ taxaw ni jaay doole bi président Macky Sall bëgg a def comme na ko Senghor defe woon am 968 nga xam ne bi mu bëggee jaay doole sénégalais yëpp moo mooñu syndicat yi taxaw centrale syndicale yi taxaw marlo ak le régime du président Senghor tey lii président Macky Sall def même Senghor ñëmu ko foon def kon nag tey ñi ngi woo centrale syndicale yëpp ñu jël seen responsabilité taxaw ni képp ku taxaw seetaan ça veut dire que lii Macky Sall bëgg a def yàgg moom yéen a ci ànd syndicat ouvrier yi ñëpp ñu am si ñu ngi liggéey seen ñëpp nañ taxaw dakkal liggéey bi taxaw tem won président Macky Sall lii la ñuy wax ni tey ñu ko defee président Macky Sall dina dellu ginnaaw le vingt cinq février deux mille vingt quatre ñu organiser ay élections yu leer sénégalais yi génn solo ba rafet dem taxaw ci bureau de vote yi fal ki nga xam ni moom lañ bëgg fal le cinquième président de la république du Sénégal lii lañ amoon di leen ko wax. man ngeen a julli fajar ku man na dem jullee ji fajar biir ville ca assemblée nationale nañ fa dajee ñun ñëpp suba incha allah pour peuple sénégalais parce que peuple bi d'accorduñ ci li Macky Sall bëgg a def te yéen yéen a nekkal bi ca assemblée nationale yéen yéen yéen député kon ñun sénégalais yi ñooy taxaw ca comme ni ko defoon 23 juin ñun bëgguñu Macky Sall dàq suñuy élection kon yéen député yi am leen droit de yokkal Macky Sall mandaam kon nag askan wi taxaw leen suñu taxawul président Macky Sall dafa bëgg a installer dictature au Sénégal maanaam noot ñëpp ba nekk fi buur nekk fi bumi dañ ko bëgg a jox bu boobaa nag daan ñàkk fayda te bu ëllëgee daan tuuti ci sunu kanami kanami doom danañ tuut ci sunu kanami sët te dinañ am responsabilité ci ëllëgu Sénégal kon nag na ñëpp taxaw bu kenn yox yoxi nañ wan président mak Sall ni réew mi moomu ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam